bëgg-bëggam mu sa nekk tekki ci football club bu mu dem ñu dummóoyu ko wala ñu wan ko ginnaaw ba du fa amee la mu bëgg mu dund ay jafe-jafe yu metti jamono di dox ba tey mu bokk ci gardien yu nu gën a ràññee ci àdduna bi dal leen ak jàmm kan mooy Edouard Mendy lan mooy ay jaar-jaaram nan la def ba nekk li nga xam ni moo di gardien de but ginnaaw bu mu dundee ay jafe-jafe yu méttee métti moom mi ngi le le er mars 1999 fële ci France papam Bissau Guinéen la yayam di sénégalaise mom nak bi amé le ans la intégré ben club bu ndaw bu wax France mom bimi soga dor de pointe la won wante benn bés seen gardien dafa daldi absenté entraîneur ko yow yaay goal mu dem ca def match bu am solo bobu le de commencé nek li nga gardien de but ca noonu mu nekk foofu ci Crocoville li ko dalee 1999 ba 2005 daal di fay jógee nag daal di dem beneen club bu ñuy wax le Havre AC ba mu agsee foofu nag ca le Havre coach ba fa nekk daf koo xamal ni ko yow meen di man compté ma ci yow pour nga nekk sama premier gardien ndax man am naa gardien ba pare ca la nekk foofu quelque temps waaye mënut a fexe bañ may ko li nga xam ne moo di temps de jeu sax mu daal di fay jógee daal di wuti leneen xam ne foofu mën faa amee bëgg-bëggam naka nonu ben at ginnaw loolu ñëw en 2006 mom mendi mu daal di jël décision daal di dem ci benen club bu ñu wax CS Municipaux nga xamni ni ma nga nekk club bu ndaw ndaw bo xamni ma nga ci division inférieure manam division yu gëna a ci championnat France bi noonu mu daal di dem fofu nak dafa def li nga xamni modi 5 saisons. ginnaaw loolu ñu ñëw en 2011 Mendy daal di jóge foofu mu nekkoon daal di dem beneen club bu nekk troisième division bu ñuy wax Cherbourg waaye foofa dara dux fa ba tey ndax at ma ca topp dañ leen a relégué ñu wàcc division bu gën a tuuti at ma ca toppaat ñu relégué waat leen ñu wàccaat division bu gën a tuuti waat foofa lépp daal di jaxasoo Mendy daal fay bàyyi lépp daal di ñibbi kër yaayam ak baayam ci loo xam ne jàppul ci dara ca noonu kii nga xam ne moo nekkoon agent wam daat koy wan ginnaaw daat koy bloqué carrément moom Mendy di dund ay jafe-jafe yu metti non seulement soutien de famille la wante jàppul ci dara loolu waral ba mu dem daal di inscrire ci lii ñuy wax Pôle emploi benn agence boo xam ne ma nga nekk fële ca France te jàppale waate ci wàllum liggéey ca noonu sax am na benn xaritam bu ko doon wax ni ko kaay ma jox la sama boutique bi nga xam ne prêt à porter la nga géreel ma ko fendu maa lay fay moom Mendy demal na bay xalaat sax di dem di jëli loolu nga xam ni mu di boobu ñu koy proposé wante loolu lépp taxul mu xaar benn yoon ma ngay beru di entraînement li ñuy wax entraînement individuel maanaam di boo xam ne moom rek koy defal bopam mom Edouard Mendy ginnaw loolu ñu ñew en 2015 ben xaritam bu nekkoon professionnel daat koy booleeg ben entraîneur bu nekkoon ci équipe bu Marseille bu ndaw bi fofu lañ ko jël 1 an mu commencé nak di entraîner waat normalement ginnaw loolu ñu ñew en 2016 Mendy daal di signé premier contrat pro ak club bi di Reims daan di and ak ñom yëpp première division def ay performance yu doy war di wane bopam bu baax a baax ba tax na club bi di Rennes daat koy gis daat ko jënd tool ci 5 millions d'euros ginnaw lolu ñu ñëw en 2021 Edouard Mendy accepté porter les couleurs du Sénégal ndax yaayam sénégalaise la ba tay mu continuer di wone bopam bu baax baax fële ren ba tax club bi di Chelsea daat koy gis daat koy jënd lu toll ci 25 millions d'euros en 2020 ca nonu mu nekk le gardien africain le plus cher de l'histoire waye tamit le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 française ca nonu mu dem fofu ci Chelsea nekk fa gardien numéro 1 gagné fa ay trophées yu bari bokku na ci Ligue des champions Super Coupe de l'UEFA mondial des clubs mo nekk le meilleur gardien FIFA 2021 waye tamit gagné na li nga xamni modi Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal ki moy Edouard Mendy